ginnaaw ëllëg sénégalais yaa ko wax ñoo ko wax Qatar 2022 suñu équipe qualifiée na dem ci coupe du monde suñu première match ñu gën ñu 2-0 suñu deuxième match ban message nga am pour gérer en même temps Aliou Cissé bi nga xam ne mooy sélectionneur waaw man des fois man dama comprendre sama mbokk sénégalais yi tout le monde est expert ci football ci musique ci lamb nit loo xamul da nga ciy maandu Aliou Cissé bu amul ñu mu jël xëy na ñu am na lu tax jëlu leen ndax moom moo nekk ak ñoom critique nag day avancé loo nit mais am Aliou Cissé moo nu indil coupe d'Afrique bu nu am benn defet kese ñu bëgg ko xalam nit du fàtte démb te du fàtte lu baax Aliou entraîneur la africain la sénégalais la nan ko bàyyi mu yor équipe bi Sadio Mané nag koy ñaanal mu wér bu wér mu tamit

suñu mbokk sëriñ yi lan génn ci suñu football bi. lan génn wala sëriñ yi wala charlatan yi. ah man sëriñ laa leen di wax xam nga charlatan c'est français. c'est ay Sénégal bu dee ay patron. ñu ñaanal équipe bi ñu gagné moo gën. mais ku wootu naan fay ma da la war a dóor ba nga bëgg a dee. <laughs> da la war a dóor Macky Sall da lay war a jël ñu parkat la. stade Demba Diop loolu la yëpp par la dañ bëgg ngeen ñaan équipe bi indi coupe bi bu kay ñaan leen ko. merci beaucoup jërëjëf merci. lépp nice. yow yow ah, noonu. li wax kay c'est bien baax na. instant yii moom xaaral